bëri na ay réew yoo xamante ni maanaam farata lu ñu woon li nga xam ne mooy masque ñu dem ba mu yàgg ñëpp di digle ñuy takk masque rawatina réew mu mel ni réewum Sénégal te nag lu jëm ci wàllum vaccin bu koy faj ba léegi nii trouvé guñu ko ki nga xam ne nag moom mooy Didier la wax na nag benn weer waaye nag def ko njort rek ndax lépp loo xamante ni ay natt la wala ay xayma yoo xamante ni def nañ ko ci woppi coronavirus ji gis nañ ne du méngoo ak li nga xamante ni maanaam moom mooy mujjee am yéen gii di réew mi ko dajee Assane Samb xëy tënk kàddu yëpp ne li am ba des daal mooy woppi coronavirus ji lim ñu rawee dafa bëri loola yéen a kaay la turbine xëy wax ci masque yi nga xam ne maanaam ñu bari nag ñoo ngi takk masque di ko jënd ci mbedd mi waaye nag musiba ma bokkumba gu rëy mën na faa daa di am yéen a kaay gi de las mu xëy di ñu xamal lañu nag lu soxal xaalis bi nga xamante ni ñoo ngi koy dajale ngir nag lijjanti ci jafe-jafe yi nga xamante ni covid 19 daana koy indi ci réew mi maanaam kuréel googee daat nañu koy installé ni ni ñoo ngi bàyyi ko ci conseil économique social environnemental ñuy jóge collectivité territoriale ñi assemblée nationale ñi ay way politique lañ ñi nekk ci société civile bi ñi nekk ci secteur privé bi ak yenn ci ay ministère ñi sax jugee nag ci kuréel gi ëmbu maire yu Sénégal ak association consommateurs yi journal bi ne ñii la ñu daal di teg ngir nag ñu daal di saytu lépp loo xam ne jëm na ci wàllu woowa ba tey ci yéen kaay gi mu xëy di ñu xamal ñu marché Ocass daat nañu koy tëj nag ngir nag wopp ji nga xam ne maanaam moo fay jaaba jonge journal bi di Vox Populi mu ñu xamal ñu virus bi kay ma ngi ci diggante Touba ak Mbacké Libération yéen mu ñu xamal ñu Covid 19 bi nag daan nay gagné nag place bu yaatoo yaatu diggante Touba ak Mbacké ndax ñàkk fa amee maanaam lim bi ma ngi yokk saa su nekk tribune yéen a kaay ne nag lu toll si ñeenti junni ci ay nit yoo xam ne daat nañ leen di confiné ci biir réew mi yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal ñu am na ñett ñoo xamante ni ñu doon liggéeyee ci hôpital principal dañoo amee woppi coronavirus ji am na ci koo xam ne ab cas communautaire moo ko ko daal di wàll l'observateur mu ñu xamal ñu lu toll si juróom benn ci ay agent yoo xamante ni amee nañu woppi noppi coronavirus ji loole nag daat nay tax Mballo Dieng moom nag jóg di ñaawlu mbir moomee nag ba pare nag di wax ñu jël ci ay matukaay yéenekaay gi de la turbine mu ñu xamal ñu principal jamono ji mën nañoo wax ne dañu ko daal di tëj ndax nag jamono ji nangootuñ benn visite lu toll ci cinquante agents yu doon liggéeyee hôpital principal dañu leen a quarantaine ñoom ak seenu njaboota yéenekaay gi de l'observateur mu xëy nag ci Serigne Djibi Sow mi nga xam ne woppi coronavirus ko rey ca diwaanu moom nag ab médecin la bu ñu ràññee woon diwaanu Louga journal bi nag nee na ki nga xam ne mooy commerçant ba ka njëkk am ca Louga te wàllu ñu bare bari ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur seete woon nañ Serigne Jibi Sow na ko ndax amuloo benn contact ak commerçant bi daf ko weddi woon ne amuñu benn contact waaye nag xibaar yi nga xamante ni moo sa mujjee jib Serigne Jibi Sow moomee gisante woon ak commerçant boobu ndax commerçant bi lu ko mosaa dal rek gare bi wolof lay xalaat ba tey ci biir yéen a kaay de las mu ñu xamal lañu Medina nag ndaw ñi nga xamante ni ñoo fa nekk jamono ji seeni mbir jar naa xoolaat bu weesoo nag juróom-ñett fukk ak juróomi ndaw yi nga xam ne tegoon nañu leen loxo mujj leen bàyyi am na ñeen fukki nit yoo xamante ni daat nañ leen fay tegaat loxo ngir nag ñàkk respecté li nga xam ne mooy état d'urgence bi yéen kaay gi de la turbine xëy nag yóbbu ñu diwaanu Kambureen mu ñu xamal lan ñu lu toll nag ci ay fukk ci ay daara yoo xam ne daat nañ koy tëj génnee fa lu toll si ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay taalibe yoo xam ne ñoo nga fa doon jànge yéen gi di réew mi quotidien moom xëy yóbbu ñu diwaanu jam ñaajoo foofe nag dafa am benn juma bu mag boo xamante ni ay sàmba booy ñoo fa dugg taal li nga xamante ni mooy basang ya caxt-caxtee ko ñenn ñi sax njort nag ne dañu fa doon sangoo saafara yéen kaay gii di vox populi moom tim xëy di ko dëggal yokk si nag ab église paroisse bu Saint Germain bu nekk ca diwaanu Marsassoum ca diwaanu Kolda boo xamante ni tamit ay sàmba booy ñoo fa daal di dugg yéen kaay gii sunu lamb xëy nag dikkal ñu ci Alioune Sarr mi nga xam ne lu toll si ñaar fukki at ak juróom benn yoo xamante ni jiita na ko kuréel gii di CNG jamono ji nag ministre Matar Ba mi ñu dénk wàllum tàggat yaram ci réew mi ma ngi wut ku ko remplacer ndax nag ma ngi def ay consultation ngir na xool ana kan moo koy wutu yéen kaay gi du l'Observateur Bombardier mi nga xamante ni fan yëpp moom la ñuy laam-laamee ne nag dafa jëm ci ab retraite moom nag daanakay xëy weddi ka ba tëdd sa naaj ndax nee na li ko dese daat nay bëri